Lamine Kamara est tout simplement très fort 180 duels gagnés gagné du côté de Ligue 1 française boo les 5 grands championnats que ce soit Bundesliga Premier League Serie A Italie Ligue 1 française Il Ben championnat bu championnat, qui est U21 Rome, qui dit, di euh, suñu gagnez, bii di Lamine Camara Lamine Camara a un ay duels mu gagné Maintenant, si âge je quoi ko am 28 ans 27 ans et tout Maintenant, moins de U21 donc c'est quand même extraordinaire même si euh, week-end est passé commencé woon nañu frustration vous êtes nous comme musée jot naa on a message yu c'est quoi le problème c'est quoi le problème parfois da ngeen pose des questions, le problème du nous ñoo leen koy wax peut-être yenn saa a nga am lu tax mais entraîneur bu jëlee décision ban là voilà parfois c'est le joueur def lu xamante ne entraîneur bu kontaanu ci mu ban là mais boo defee joueur bu Sénégalais bu defee lu baax lu positif dañ ko war a wax encourager parce que ben brésilien dina ko def ñu wax ko brésilien yi wax benn français def ko mais comme que c'est un sénégalais mu war a xëcc ko yeneen moroomu jeune si cinq grands championnats on parle des de première ligue de Italie de Bundesliga championnat yoo xam ne ay joueurs yu tàngaan fa mu nekk sénégalais yow da nga war a am fierté mais ah kii de sénégalais la moo def lii nga content donc man man man man man kontaante boobu après voilà l'année saison on dinañ wax la bilan man moom saison bu jeexee ku nekk dinaa tiré le bilan propre rapport ak sa saison attentes yi mu amoon ci yow ban club nga war a dem ndax da nga war a et tout loolu c'est des questions yu xamante ne incha allah di ñëw mais tout d'abord cent quatre-vingts cent quatre duels gagnés en Ligue 1 sur cinq grands championnats yi amul ku def mieux propre rapport ak je dis félicitations.